asalaamaaleykum sunuy xarit sunuy mbokki auditeur yu ak auditrice yu banlieue FM ak yu banlieue TV chers téléspectateurs cher internautes tey nag noo ngi am mbégte bu rëy si di leen euh, présenter suñu première édition bu ñu jagleel jigéen ñi ñu tuddee ko jigéen ak jamono jigéen ak jamono nu ànd ci ak soxna Daba jàlloo Daba maa ngi lay nuyu di la dalal di am contentement bu rëy ci nangu bi nga ñu nangul suñu invitation jërëjëf euh, Marème maa ngi lay euh, delloo nuyu di sant yàlla di julli si sangu-sangi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ay waajur di tamit nuyu auditeur ak auditrice banlieue FM ak euh, ñi nga xamante ñoo di waa télé bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay. waa kay ñu soxna Daba mhm. mën naa la laaj yow yaay kan dafa jàll mooy kan. waaw Marème wax nga ci sa bopp nag defe naa du yomb. wante Daba Diallo benn xale bu jigéen la bu nekk fii ci Saint-Louis juddoo fii ci Ndar màggee fii ci Ndar yaroo fii dem Abidjan aussi euh, yaroo fa defee fa sama cycle primaire une partie ci sama cycle primaire ñëwaat Saint-Louis àggale fii sama cycle primaire école euh, François Mbaye Salzman. Mhm. dem lycée technique André Pétavin def sama tamit euh, sama début sixième ba quatrième dellu fa dem lycée Charles de Gaulle jàngee fa ba terminal am sama bac bu ma fa jógee si laa commencé nag di intégrer rajo Saint-Louis rajo Saint-Louis ni ma ko waxee woon barki rek. Euh, ñun ñëpp on était formés dans le tas dañ doon ñëw foofu. di def ay émissions boobu maa ngi bokkoon ci association pour la renaissance du Pulaar euh, sama yaay doon euh, vice présidente bi ma nekkoon ci association bi man damaa a nag intégré vie associative sama yaay moo nekkoon présidente bi maa judd rek fekk suñu kër ñuy organiser ay association di organiser ay maanaam njàngum Pulaar yëpp ma fekk sama biir kër rek mag daal di teel a dugg ci loolu daal ci intégré bu ma nekkee lycée Charles de sax doon jàng si la commencé. ci biir suñu association boobu ñu dénk ma wàllu communication boobu temps ñoom Mamadou Gueye euh, ñoom ki euh, abu Dembel Mbodj ñoom ñëpp si association lañ bokkoon ñu nekk ay mag suñu ay papa euh, boobu tamit ñun tamit ñu nekk ci ci association bi ñu dénk ñu wàllu li nga xamante ni moo di communication association bi si lañ ko doon jël bi bu ñu amulee cours dañ daan de mercredi soir rajo RTS di fa enregistré suñu ay émission bu may fay enregistré émission yi nag après ci benn jour Tidiane Anne boobu mu ngi fa nekk directeur mu ni waaw xale bii di def émission bi pulaar bi kan la ñu ne ko benn élève la bu nekk saar Dougol mu ni bu ñëwatee fii ngeen woowal ma ko bi may ñëwaatee foofu benn jour may enregistré Euh, après ñun ma sama pare nga wuyu directeur ma dem mu ne ma yow euh, xam naa daal xaw ma lan qu'est-ce que tu veux faire euh, à l'avenir man tam ma ne ah, xaw ma mais communication neex na ma. munu ma yow moom bu yeboo rek nga consacré wu ci wàllu communication ndax yow tu as une ni ma la gisee nii nitu rajo nga moom ko jëkk moo jëkk lool ci man. au fur noonu ba ma pare sama jàng tamit ma ñëw si la commencé di intégrer rajo bi comme ñëpp rek xale yi ni ñu def noonu ñuy fay jox ay émissions lu mel ne podium des artistes laa jëkk animé rajo Saint-Louis. Euh, jóge ca dem ngal pulaar am na sax ñu bëri bu ñu ma dégg naa waa dama jàll moom yàgg na rajo de boobu ba léegi ma nga <laughs> rajo wante dañuy réere mbir na bi ma nekkee rajo nekkuma woon koo xam ne dañ ma embauché woon rajo wala dama nekkoon proprement dit rajo dama nekkoon mm. rajo di fa ñëw def émission di dem mais boobu instant maa ngi doon jàng léegi bi ma ree sama jàng ma continuer ci rajo bi nekk noonu ak fak suñu ay mag yu baax ñoom daaw di gisee ñoom Golbert ñoom Marie Madeleine Moustapha Dioni Mbaye ñoo ñëpp nag ñu encadré ñu jox ñu nag amuuru rajo ñuy continuer foofu di fa ñëw di fa ñëw ba yàlla euh, defal ñu euh, jël ñu fa dañu fay ay cachet bi ñuy fay suñu ay cachet yooyu ñuy continuer ci loolu au fur à mesure des ans ba yàlla defal ñu suutara ñu embauché ñu bi ñu embauché benn jour ma toog rek euh, Khalil ture boobu mu ngi euh, yore woon rédaction centrale Dakar. Mhm. Khalil woo ma ni ma daba euh, dafa am benn formation boo xam ne dañu koy def sisti mhm. léegi Martin fay moom moo ko yore ci benn projet bu tudd Hirondelle. Mhm. léegi dafa am ay treize pays africains yoo xam ne dañu leen choisir mais Sénégal daf ci bokk. Sénégal nag dañu ni nañu choisir ñaari élément yi nga xamante ni bëgg nañu def formation boobu man nga Khalil man lay ti formation embauchement laa doon ñaan yàlla defal nañ ma embauché nañ ma déjà man Khalil Touré ni ma daba embauchement dëgg la wante diplôme tamit am na solo loolu ci dund nit wala ki nga xamante ni yaa ngi aspiré nekk dara ëllëg mm-hmm. mun ma moo tax nag dama lay wax rek pour nga def formation boobu si laa nag nangu ma def formation bi euh, def euh, euh, ànd ak Martin Faye ñu encadrement ñu mel na Pedre Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ñu Antoine Ngor Faye ak Seydou Dia Seydou Dia moo doon sama directeur de mémoire bi ñu demee instant boobu ñu nekk Dakar CESTI fa lañ doon jàngee nekk fa ñu logé ñu fa bañ première année bi ñu ne comme dañ leen embauché mun ñu leen fi téye pendant durant toute votre formation il faut ngeen dellu ñu def cours en ligne si lañ ma dellu si Saint-Louis di def cours en ligne bi ma commencé def cours en ligne ma jël Seydou Dia comme sama directeur de mémoire Seydou Dia doon ma encadré ma doon euh, liggéey sama liggéey en même temps di jàngale euh, su ma bindee sama mémoire jox ko mu corrigé ma ba jour bi nga xamante dañ doon woon soutenir à Dakar ñu ne ñu léegi il faut ñu dem Dakar ñu dem à Dakar ñu soutenir yàlla may ma euh, bi ma soutenir sama mémoire ma am mention très bien borom sant yàlla bu baax a baax depuis loolu nag euh, nouvelle gouvernance des rajo ñëw rajo mm-hmm. Saint-Louis xam nga boobu ci temps euh, boo ko laajee ñoom daaw di suñu fa jaar sa daañu la ko wax mm-hmm. boobu ñaari chef rek ñu doon am ci région yi mooy directeur euh, chef de station régionale bi ak chef de centre technique mm-hmm. ñoom ñaar ñoo doon am mais bu ñu defaatee nouvelle gouvernance des rajo ak arrivé Racine Talla def nouvelle gouvernance des rajo léegi rajo bi dina am lu toll ci 3 dina am chef de département am chef de service am chef unité programme am chef unité euh, technique léegi yàlla suturaal ma man man maay chef de service bu rajo Saint bi actuellement fi may jamono ji may wax ak yow. ah allah Daba sa parcours rafet na mais ni ma jàngatee ci sa biiru wax dafa mel na euh, yow bi ngay jàng. da nga doon defaale en même temps communication bi est-ce que difficulul woon si yow est-ce que amoo ci woon ay gàllankoor pour allier ñaari jàngi ñëw encore di di def communication en même temps. waaw c'était pas du tout difficile nag ndax euh, communication bi moom mercredi soir rek boo xamante aw ma cours si laa daan dem rajo li si des bi dama doon occupé samay euh, cours si laa daan jàng sama njàng. association bi tamit euh, des fois ñoom seen ay réunion ak yooyu weekend bi la daan tombeel bu ñu ñëwee weekend bi ñu def réunion yi bu ñu ñëwee ñu jox ñu li nga xamante ne rek mooy seen ordre du jour ak li ñuy def parce que dañu jagleeloon benn émission boo xamante ni dañ mayoon association pour la renaissance du Pulaar ñu ko la rajo léegi loolu laa doon yëngatu su ma jàngiwulee rek si laa doon dem mais li si le reste du temps yëpp si sama ay jàng laa doon laa doon consacré wu. Ah, macha allah donc euh, mercredi bi ñu génn. Mhm. ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp noo ngi doon jëmmal bëccëgu 8 mars. Mhm. ban jàngat nga am si bëccëg boobu. waaw 8 mars euh, defe naa ni mari man li may chaque jour rek euh, ñun jigéen ñi waruñu wax rek benn bëccëg la ñu moom ci année bi. vraiment <laughs> ndax defe naa ni jigéen moom euh, dañ ko war a jagleel toute l' année comme ni ko sama càmmi sama xarit Baaba ma li mu waxoon barki dem mu ni femme yi dañ leen war a fêter 365 jours sur 365 jours parce que jigéen defe naa mooy lépp jigéen mooy yaay mooy soxna. mooy mag mooy rakk mooy lépp jigéen sax mooy àddina la ñuy wax. ndax benn jigéen bu baaxee rek société bi baax na benn jigéen bu bon société bi bon na. Euh, te 8 mars man li ma si jàngat mooy man pour man dañoo war a def tout le temps euh, c'est bien beau que journée bi ñëw ñu feete ko mais bu paree war nañu def euh, xoolaat suñu bopp ñun yan avancé la ñu am lan moo ñu dese lan moo ñu manqué ak fan la ñu war a jëm. parce que jigéen damaa xool ni seetlu ni bu fekkee 8 mars ñëw ñun ñëpp ñu jënd suñu ay déguisement ñëw def suñu ay yendu. toog tëgg fecc bu pare ku nekk demaat toog sa coin wala ku nekk nekkaat si yeneen activité hmm. loolu tamit du ñu avancé lu ci dara 8 mars bu jotee war nañ def lenn lu concret wala ñu def si ay jàngat xool ëllëg fan la ñu teg suñu tànk ak fan la ñu jëm lan moo ñu lan fan lan la war a yokk ak lan moo xamante tey ñun ñi jigéen ñi suñu wàllu bopp war nañu ne que lii kat il est ñu bàyyi ko parce que lii ça nous avance à man loolu laa jàngat ah, a baax euh, bëccëg boobu am na pàcc ak charte yu am solo ci àddina bi yépp est-ce que gis nga ni am na njeexital ndax am na lu ci lu ci euh, njeexital boo xamante ne bu jëm ci àq ak yelleefu jigéen ndax jigéen ñi ñu ngi jot seen àq ak seen yelleef comme ni mu waree. Mhm. Euh, duma ni jotuñu ko des na naam mais am na ay avancées quand même yoo xamante ni gis nañ ko fii ndax euh, tey ji boo gisee ni jigéen ñi ni ñu organiser wu mm. ni ñu organiser wu ci wàllu association yi ni ñu organiser wu ci wàllu li nga xamante ni moo di li leen di euh, yóbbu kanam daf bëri na lool parce que avant bu ñu seetee loolu yëpp amul woon mais euh, actuellement nii gis nañu jigéen ñi vraiment ñu ngi leen di commencé di leen gestu di leen jox seen gëdd wante ñun nag ñoo war a taxaw bu baax a baax xeex loolu pour loolu mën a antu waaw dëgg la jigéen ñi moom am nañ ni mu gëdd bu mat sëkk daal. Mhm. maanaam léegi ñu desandi ba tey ci àq ak yelleefu jigéen. Mhm. nan nga gisee parité bi au Sénégal parité est-ce que ñu ngi koy doxal normalement au Sénégal ni mu waree. Mhm. wala wala. <laughs> parité waaw parité de ah pourtant de ci euh, y a des avancées quand même je peux dire euh. parce que tey foo gis benn góor a gis nga fa jigéen te jigéen ñu ngi occupé poste de responsabilité moom titre que les hommes kon nag mun naa ni parité bi am na euh, ci suñu ay maam yi tey boo leen yeewoon ci seen ay biiri bàmmeel mm. boo leen waxoon ne que tey jigéen premier ministre mën na am dañ naan mënut mënut a nekk mais tey ji gis nañu ni parité bi muy si instance de décision yi bu dee assemblée bu dee ci wàllu gouvernement bi ak yeneen ak yeneen foo gis daal jigéen ñi vraiment ñu ngi bàyyi nañ leen xel daal ñu ngi leen di jox jox seen seen place bi nga xamante ni euh, moom moo leen di revenir comme de droit. alors ah, moom am na moom am na yuñ ci jot a gis. Mhm. bon ñu desandi ba tey ci àq ak yelleefu jigéen. Mhm. pour ñu mën a waxtaanee njàng mi. xale yi jigéen ñi xam na euh, xam na ni fukki xale yu jigéen yoo jël xëy na ñaar walla ñett ñoo ci àggale ñoo ciy matal seen cursus scolaire. Mhm. ñii sëy yu teel a koy waral. ñii liggéeyu biir kër boole ak njàng mi moo leen di tardeel mhm. léegi yow loolu ban gis-gis nga ci am. waaw loolu moom Marème dëgg la parce que defe naa bu ñu xoolee euh, mariage précoce yi moom ci village yi la gën a desandi que en ville léegi. Mhm. village yi moom ba tey loolu moom problème la foofu da gis xale bu jigéen euh, buy jàng. pratiquement bu demee ba sem de rek génn nañ ko école teel nañ ko may may jëkkër loolu dafay freiner lu bari ci li nga xamante ne tey évolution bi nit ñi waroon a am surtout jigéen place bi mu waroon am ci société bi loolu freiner na ko wante naam ñu ngi ci def ay gëstu ñu ngi ci yee nit ñi di leen yee pour lool tamit ñu xamante ni jigéen tey jii nii du teel a sëy rek mooy mooy mooy waru garam jigéen moom day sëy loolu moom ala kulli alin day am mais tamit jigéen dañ leen ñu am seen i diplôme comme góor ñi parce que dañu naan ne góor baax na jigéen baax na. Mhm. parce que tey fu góor taxaw rek jigéen war na fa mën taxaw te tamit Mariam am na leen loo xamante ni euh, tey waajur yi war nañ ko bàyyi xel parce que nit koo xam ne da ngay tàllal loxo tout le temps bu si kanam boo jé boo moytuwul ñu jéppi la boo moytuwul ñu jéppi la kon nag jigéen defe naa ne jàng am sa mënal sa bopp am autonomie loolu baax la ba nga mm. xamante ni tey sa jëkkër bu ngeen nekkee ci kër bu defee benn yow nga def benn wala su defee ñaar yoo tamit nga def benn defe naa ne loolu day gën a neexal sëy bi au lieu que ñu jàpp xale yi rek di leen teel a maye ba nga xamante ni duñu mën a àggale seen jàng loolu la tey ji boo demee dans euh, ci fi nga xamante ni moo di biir Fuuta laa mën a wax wala ci biir village yi mm. jigéen ñi pratiquement ñëpp xale yu jigéen ñi dangay gis dañu teel a dem sëy ji mm. wala ñu ngi nekk ci travaux domestiques yi nekk ci biir kër yi di liggéey ñoom pour ñoom jigéen foofu mooy place am alors que euh, fu mu nekk nii monde bi évolué na jigéen ñi war nañ leen bàyyi ñu mën a jàng war nañ leen bàyyi tamit ñu mën a am seen place dans la société. loolu moom dëgg la monde bi évoluer na parents yi am nañ ci part de responsabilité Euh, ndax comme ni nga ko waxee li ci ëpp léegi ci zone yu isolée yi la des. ci mhm. village yi ak yenn parties yi mais en ville dina tane mais en ville gisoo ne xale yi jigéen yi parfois aussi ñoom ñooy gàllankoor seen njàng. Mhm. ndax négligence wala xëy na ñàkk xam. Mhm. topp yeneen i affaire ba am lu leen dab loo xamante ni day gàllankoor seen njàng. Euh, loolu yëpp dëgg la Marie parce que en ville tamit ni nga ko waxee nii rek xale yu jigéen yu si bëri man li may wax toujours nit ki il faut avoir la tête nga am ambition si sa àddina nga ni man lii moom moo tax a jóg objectif bi laa am loolu dama ko war a atteindre loolu soo ko defee rek da am li nga xamante ni moom nga bëgg te yàlla dina la si jàppale mais su fekkee na nekk xale bu jigéen eh, tal xale yi ni nañ ma baal parce que da ngay leen di gis tey jii nii ku ci eh, di jàng ji soo ko séenee rek da nga naan sax est-ce que kii école la jëm ci col kinam ci maquillage te loolu yëpp ay temps nit ñemewu ko woon sax xalaat ah nga gis xale buy jàng ji amee téléphone boo xamante ni presque jar na 300000 wala 400000 ah, nga gis xale bu jigéen buy jàng jàngi teg ay cheveux xamante ni xanaa mot na 300000 ah xale bu jigéen buy jàngi ji di sol yenn colkin yi nga xam ne nga mel na ko du école moo tax jóg wala du jàng moo tax jóg bu ëllëgee loolu ci mënta dal yaa gàllankoor sa bopp yaa ko indi sa yaa ko teg sa bopp doo ko jooyee kenn doo sa ay parents waajur yi naam yar nañu ba bëgg dee wante tamit xale yi tamit ñoom dañu war a dellu seen xel xamante nit ki tànk yaa ngi jàng man li may li may wax rek toujours sooy jàng xamal ni que da ngay jàng soo paree jàng li nga bëgg ci sa àddina defe naa daa ko mën a réaliser sa bopp mais soo waree jàng moom jàngal ba sa jàng teer naa ne loolu tamit xale war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xel bu baax a baax ndax parents yi lu li ñu mën rek mooy jàppale la mhm. dugal la école jàpp si sa njàng ba nga bañ manqué dara mais xale bu jigéen bi tam war na am jom mhm. am am vision bu sori ba nga xamante ni dina mën a toppatoo jàngam ndax yenn yi àndul ak jàng. Mm-hmm. nga mag yow ba mel na ku jëm ci yi mm-hmm. àndul ak jàng teg ay greffage yoo xamante ni ku nekk ci ku am salaire sax mënu koo jënd loolu yëpp àndul ak jàng ay provocation la. Mm-hmm. parfois xale jigéen yi dañuy topp loolu ba am lu leen arrivé mu gàllankoor seen jàng. loolu itamit am na. donte parents yi ñu ngi def seen wareef ba mu mat sëkk. bon nag xale jigéen yi bu ñu déggee. nanu góor lu it ci pàcc boobu nu góorgóorlu si bu baax a baax ndax nit danga war a am ambition war a am ambition ngir ëllëg ak si biir nga mën a àgg fi sa moroom yi àgg nga mën a tekki loolooy waral ñu naan góor baax na jigéen baax na mm-hmm. bu ko defee fu góor toog jigéen mën a toog ca wetam mm-hmm. mën a def la ko war moom itamit mm-hmm. waa bu nu jógee ci loolu ba tey ñu desandiwaat ci àq ak yelleefu jigéen ndax gis na ni xoqatal ak mettital jigéen tey dafa gën a tar ci àddina si jigéen ñi ñoo ngi leen di viole jigéen ñi ñoo ngi leen di dóor jigéen ñi ñoo ngi leen di mettital mm-hmm. loolu lan nga lan mooy solution bi mm-hmm. euh, pour man solution bi defe naa ni jël ay mesures yu yu sévères loolu bokk na ci benn solution bi nga xam ne man ci man loolu laa xalaat mm-hmm. parce que mënuñu gis ni que nit tey ji nii nga viole doomu jàmbur wala nga jàpp sa soxna sax bi nga xamante yaa ko takk nga dóor ko def ko yenn yow bu ñu la yóbboo ci yoon xëy na daan gi ñu lay teg bu ëllëgee dafay encouragé keneen ku mel na yow def loolu tey suñ doon na euh, teg daan yu sévère mm-hmm. képp ko nga xamante ni jàpp na ne si nakk su du noonu ñu teg benn daan boo xamante ni si sa kaw bu ëllëgee sa beneen morom bu ko xalaatee du sax jéem naan mu ngi def li nga def ni nii mm-hmm. mais su fekkee ne tey wala maslaa maslaa bi bëri dañuy gis si biir famille yi tey nit da def lenn loo xamante ni euh, violé ko xamante ni sa jarbaat la wala leneen dañ naan déedéet lii de buñ ko kenn wax parce que suñ ko waxee day yàq njaboot gi waaw buñ ko waxee rek kër gi day tas wala buñ ko waxee de gàcce kër gi la mais gàcce kër gi la ngeen nëpp nëppal ko ba ëllëg si biir kooku bu jógee dina ko def def keneen def ko keneen def ko ah, loolu day gën di law mm-hmm. mais su fekkee ne tey ji nit ki def na lenn loo xamante ni xam nañu ne ko lii jaaduwul ñu corriger ko sévèrement ëllëgee dootul encourager keneen ko nga xamante ni tey jii dina euh, moom xalaat sax def li ni mel waaw dëgg la loolu moom dëgg la moom ndax nit ki boo defee li ñu la war a sanctionné bu ñu la sanctionné ba ëllëgee doo ko def sa moroom bu ko gis du ko def mm-hmm. mais laisser-aller bi dafa bëri lool mm-hmm. laisser-aller beeg euh, masla bi dafa bëri lool lool lool femme eh, donc journaliste nga. Mhm. jigéen buy xëy ci biiro nga. Mhm. léegi yow nan ngay cumuler sa liggéeyu journaliste. Mhm. ak sa liggéeyu kër ga ak sa yeneen i soxla jigéen xam nga ñun jigéen ñi dañoo bëri ay dugg-dugg. Mm-hmm. <laughs> ñu ngi ci liggéeyu kër gi ñu ngi ci suñuy xew yi ñu ngi ci suñu yeneen affaire yoo xamante ni. Mm-hmm. tubaar fa xam nga rek. Mm-hmm. <laughs> ngay <laughs> nan ngay allier li yooyu ak sa liggéeyu journaliste. Euh, jafe na jafe na trop trop trop ndax li euh, nga ko waxee rek liggéeyu journaliste moom amuñu heure des fois da ngay toog sa kër ba euh, su ma fàttali ko rek ci grève bi ñuy def grève bi fii taxi oto yi bi ñu bañee mesure nga xamante ni gouvernement bi jël na ko dañu ni ma damaa toog ñu ni ma 22h na nga génn nga dem gaaru Thiès xool est-ce que respecté nañu mesures yi déjà nga toog sa kër ba 22h wala au-delà de 22h sax yenn saa dañ lay woo téléphone bërëb sàngam lii xew na fa tu es nga dem. Euh, loolu defe naa ni lu jafe la mais euh, nit ki il faut nga euh, savoir s'organiser dans la vie. Mm-hmm. te lépp loo xamante ni bëgg nga rek yow war nga ko jox àq ba mot sëkk. Mm-hmm. ba nga xamante ni ci côté liggéey ak lu mu jar rek daañ koo def mais tamit si côté famille bi weekend baa ngi fi des fois soo fekkee ne demoo euh, liggéeyi mais c'est pas évident des fois sax weekend dañuy liggéey mun nga tomber dimanche bi nii tey nga jékki-jékki benn reportage am ci es obligé nga dem euh, il faut que ñi nga nekkal ñu mën la comprendre loolu rek moo la ci mën a génnee ñooñ dañ lay mën a comprendre yow tamit saa yoo amee jot nga jox ak bi nga xamante ni moom moo la warloo ak sa diggante ak sa waa kër def li nga xamante loolu nga war def wax na la loo xamante ni du dëgg <laughs> waa li nga wax rek ci nekk donc euh, liggéey yi benn yomb ci. Mhm. Euh, organiser wu rek la laaj. Mhm. boo organiser woo rek bu ci nekk di nga ko mën a def. Mhm. mais en tant que journaliste avant may wax ci sa posture d'abord. responsable programme. bon léegi est-ce que jafe na si nekk un responsable devant tant dome ndax doo ci am jafe-jafe wala yooyu ak yan jafe-jafe ngeen di faral di jànkon jànkonteel ci biir liggéey entre collègues daal. Mm-hmm. Euh, responsabilité boo boo gis rek du du yomb ndax day am ñu nangu am ñu bañ. li may wax rek chaque jour euh, yow yi nga xamante yaa jiite rek yaay fiiti ci muñ ak di comprendre nit ñi ndax soo nekkee jigéen nga nekk ci ay biir góor jiite leen des fois daañu la xoole benn bët bi wante yow yaay am sa fulla bopp nga xamante ni man lii mooy sama objectif lii moo ma tax a jóg kon naa ko jox sa àqam te tamit nga am ma yërmande ci nit ñi man li may wax chaque jour ma ni man bugguma bañ ma ko ma mere mais suñu may mere yàlla fekk ci dëgg laa nekk mm. parce que soo nekkee ci dëgg man su ma nekkee ci dëgg nu ragal xam nga lay ragal tooñ wala def loo xamante ni waruma ko def mm-hmm. wala sanctionné nit ci loo xamante ni bu ko nit ki déggee wala fu ñu dem ci suñu ay kanamu kilifa ñu ni ma yow de yaa tooñ wala li nga def waroo ko def mm. man loolu laay daw toujours loolu laay éviter pratiquement mun naa ni fii ci rajo bi c'est une famille yàgg nañu ñëpp xamante nañu. moo tax nag xëy na loolu tax yàlla suturaal ñu ba nga xamante ni jafe-jafe ci wàllu liggéey bi moom euh, amuñu ko macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax. ah macha allah macha allah. yal na yàlla gën a jàppale. <laughs> yàlla gën a dooleel. mais bon ci njàngalemu pulaar bi. Mm-hmm. alphabétisation bi. Mm. yaa ngi ci ba léegi walla yii jàngale pulaar bi boobu. <laughs> daw naa ko yàgg na. <laughs> ah déedéet <laughs> parce que daw ah, a baax sax xamuñu sax seen langue. muy <laughs> nga xamante ni mooy Demgal Pulaar. Pulaar laa créé la rajo bi ma bàyyee jàngale man daawoon naa def alphabétisation euh, ci semaine de l'alphabétisation damaa dem doon dem di jàngale ji pulaar mais ak liggéey bi xam nga du mën a yomb mu munoo allier yëpp nag munoo boole liggéey journaliste boole sa euh, toppatoo seen waa boole li nga xamante ni moo di jàngale ak loolu moo tax finalement ma initié woon benn émission bu tudd dem ngal pulaar mais dama ko depuis quelque temps xam nga tamit ak sama sœur ni mu feebare woon ba ni mu génnee àddina euh, ma xaw réculer mais loolu tamit mu ngi sama xel te dinaa ci continuer bu soobee yàlla ndax nit ki nee naa loo euh, mën te munoo sa làkk munoo sa mm-hmm. kàllaama yow ba tey am na lu la dese ndax nit ki balaa ngay jëggane wala balaa ngay def leneen defe naa ni da nga war a maîtriser li nga xamante ne loolu nga doon ba pare eh, loolu tamit lu am solo la mais euh, maa ngi ci daal bàyyiwu ma euh, damaa jël un peu de rek incha allah dinaa commencé waat sama émission boobu di dem gal pulaar. ah c'est bien mm. naa la sa vie privée la nag. <laughs> Daba marié ou célibataire. célibataire. <laughs> mais pourquoi Daba. ah yàlla chaque ah, ma question yaay dàq <laughs> war a mel. jigéen dàq la mer nga da nga war a mel bàyyil dàq bi dama ku jëw nga ni ko non bàyyil dàq bi nag. dàq ma kenn ma dem xam nga. bàyyil dàq bi sëy dafa jot. waaw waaw jot na macha allah sant yàlla rek xam nga nit ki li ñuy wax chaque jour rek euh, ku nekk bu fekkoon yaay sédd sa bopp rek defe naan kenn du mer te defe naa ne nit ñi euh, chaque jour man li may wax rek que nit ñi naan bàyyil dàq bàyyil dàq xam nga yàlla bu tuddee dara ala kulli ali nday am te yàlla mooy dogal muy tudd te heure bu mu ko tuddee boobu heure lay am man loolu laa gëm moo tax man yàkkanu ma sama àddina ci dara heure bu ñëwee rek baax na maa ngi li ma wax chaque jour rek euh, même su ma séyulee maa ngi sant yàlla je suis responsable. <laughs> bi ma gàddu tey ji ko sëy sax defe naa amoo yooyu responsabilité je suis ci sama kër di gérer sama waa kër di gérer sama ay njaboot di gérer sama ay ñes ak samay neveu defe naa ni euh, sant yàlla bu leneen bu ci lu ñëw rek tamit man pour man bénéfice la mais dàquma kenn il faut. yaay dàqe nag yaay dàqe moom. <laughs> dégg naa yow yaay dàqe moom <laughs> mais bàyyil dàqe bi nag macha allah jigéen moom tubaar fa kàlla boo matee sa taxawaay euh, mat itamit sëkk li nga doon fonk sa bopp bëgg sa bopp yor sa liggéey euh, dëgg la dara manqué wu la mais bàyyil dàqe bi nag loolu laa lay conseillé bàyyil dàqe bi <laughs> <laughs> waa dama xam na ni jigéen ñi. comme si bëccëgu jigéen ñi la ñu nekk 8 mars bi et génn ça. Mhm. génnaguñu semaine bi euh, comme ni nga ko waxee léegi bu nu sañoon jigéen moom at yëpp lañ koy jagleel. Mhm. ndax jigéen mooy moo moo yore lépp. Mhm. moo yore lépp bu nekkul yaay nekkul jabar yit jigéen mooy société daal maanaam. jigéen mooy société. moo ëmb lépp moo uuf lépp. te xam na ni suñu jigéen yi tubaar fa kàll ay jàmbaar lañu. suñu jigéen yi liggéeykat lañu jàmbaar lañu ña ca nekk sa administration bi tubaar fa kàlla macha allah ku bëgg lim tey juum. Mhm. ku ci nekk yaa ngi matale fi nga taxaw. Mhm. ñi ci nekk ci yeneen secteurs yi itamit yaa ngi ciy góor góorlu bu baax a baax. Mhm. surtout rawatina nag jigéenu ndar yi tubaar fa kàlla macha allah. ñii ña nga ca njaayam jën ba ñii ñu ngi ci njaayam fruits et légumes. tooguñu benn yoon ñii ñu ngi yëngatu ci mbay mi. ñii ñu ngi ci secteur informel bi. est-ce que yaakaar nga ni. ak jigéen ñi lu ñuy daj yépp ci wàllu woowu ndax dinañu dinañu am épanouissement daal. ci mhm. wàllu boobu ndax dinañ ci génn dinañ ci am euh, dina dinañ ci am dinañ ci suqaliku daal. Mhm. waaw am na ñu ci suqaliku naam parce que tey bu ñu jëlee par exemple jigéen yi nga xamante ni tey ñu ngi bay. gis nañ bu ñu jëlee exemple rek mel na Korka Diaw Korka Diaw defe naa tey ñeewul benn góor. am sa société euh, di euh, embauché ay nit. Mm-hmm. am lu nga xamante ni tey jii nii peut-être que xëy na góor sax mënul am taxawaay boobu loolu ay exemple la suñu jëlee tamit suñu jàmbaar yi nekk fii ci Guet muy femme les femmes transformatrices naam nag gàllankoor du ñàkk. parce que toujours euh, dinañ am ay yenn problème yi nga xamante ni tey bu ñu leen yokkaloon peut-être que daañu gën a am daañu gën a suqaliku daañu gën a avancé mais vraiment ñu bëri defe naan ni ñu ngi ci gis seen bopp. ndax euh, femme transformatrice yi nekk yi gennal soo leen jëlee ñoom seen GIE yu ñu créé créé parce que benn jour jàmbaar yu mag lañu def naa ak ñoom benn reportage mais tey bu ñu la waxee tey jii ñoom li ñuy euh, indi ci koom-koom fii ci dëkk bi defe naa ne ñooñu tamit dañ leen war a décerner ay palmarès sax euh, boo jëlee tamit ñeneen jigéen ñi di def métier yu ndaw yi ku si nekk tamit yaa ngi góorgóorlu ci sa wet li ci des kay mooy dañ naa rek nañ leen gën a yokkal gën leen gestu ñi nga xamante ni ñoo di suñu autorité yi tamit gën leen bàyyi xel ba nga xamante ni tey xam li ñu bëgg wala fi ñu bëgg àgg rek daañ fa àgg bu soobee yàlla. Ah, waaw waaw macha allah loolu moom dina am solo loolu ñu jàppale leen pour fi ñu bëgg àgg ñu mën fa àgg. Mhm. incha allah bon d'abord est-ce que mën naa la laaj sa nan nga gisee jigéenu Sénégal. jigéen xam kii na mais bon nan nga gisee jigéenu femme sénégalaise. femme sénégalaise jigéen ñu jàmbaar lañu. wante am na ñenn ci jigéen ñi tamit defe naa ne war nañu seetaat seen bopp. moo di dama naan chaque jour ñun jigéen ñi euh, ñun ñoo gën a mën a liggéey ñun ñoo gën a mën a épargne ñu mais ñun ñoo gën a mën a yàq. lu ñu liggéey lu ñu liggéey ba ñu eskay nga yeew benn soo ñu ndeyal la nga jël million yi def ko foofu. parce que yaa ngi bëgg wane sa bopp. yaa ngi bëgg ñu naan waaw diw xew ba ba mu fa demee def na fa lii def na fa ay teraanga bu ëllëgee nga ñëw sa kër toog say njaboot di la xool amoo sax loo leen jox. loolu tamit jigéen Sénégal lool moom si seen jikko la si seen culture la bokk. tardé loolu moo tardé suñu jigéen ñi nga xamante ni ay jàmbaar lañu ñu ngi liggéey parce que tey boo yeewoo suba teel balaa ngay tase góor jigéen ñi ngay jëkk a taseel. ñuy dem marché yenu seen paan suba teel. bu fekkee ni nekk ci yeneen ci société yi wala leneen koo ci gis suba teel ngay yeewu bàyyi sa kër dem liggéey am li nga war a am yépp am sa ay teraanga wante benn jour ñëw ñu ndeyale la wala ñu ni ndàngam wala ñu magale la yaa xam wala xew sàngam am na jigéen ñi da ngay dem wane sa bopp li nga liggéeyoon yëpp ci ay pendant dix ans nga ñëw nga dépensé ko si benn jour nga toog nag recommencé à zéro lool lu ñu tardé la ñun jigéen ñi Sénégal yi la wante ñun ay jàmbaar lañu parce que tey gis nañu même dans le monde gis nga keroog Macky Sall bi mu rendre hommage jigéen ñi. Mm-hmm. Euh, le 7 mars. le 7 mars rendre na hommage jigéen ñi gis nga li mu ci wax. ba ba ci soxnaam si. defe naa ni ñun euh, jigéen Sénégal ay exemple lañu wante nag war nañu xoolaat suñu bopp ci li nga xamante ni moo di tey wàllu organisation yi wàllu xew yi loolu moom war nañ ko wàññi bu baax a baax néew ma nañ ko bàyyi parce que ku nekk sa teraanga nga am sa bis nga am war nga ci teral sa ay mbokk war nga ci def mais li li ëpp daal. li ñuy def dafa ëpp trop trop trop nañ ko wàññi. loolu moom war nañ ko baaraam voilà nañ war nañ ko wàññi bu baax a baax ba nga xamante ni tey jii nii euh, loolu moo ñu tardel daal loolu moo tax avancement bi ñu bëgg wala bi ñuy séentu mënuñu ko am parce que bu ñu ne Sénégal amul xaalis te tey jii xew boo gis boo fa demee da ngay <laughs> léegi ay anytime la ñuy wax. waaw <laughs> semaine avant ñi ñaa ngi fuddanoo di def ay façon di maye ay xaalis di joxe lu ne ci àddina te nee ñu Sénégal amul xaalis te ñun xaalis bu ñu liggéey ñu ñoo ko yàq loolu tamit war nañ ko xoolaat. war nañ ko xoolaat moom man loolu moom daf ma jaaxal ñun jigéen ñi tubaar fa kàll ni nga ko waxee dañuy liggéey ñun ñoo gën a mën sax am xaalis ko góor ñi. c'est sûr waaye xew yi daal ñoo nu tardeel. <laughs> liggéey un an yàq ko si une journée. loolu rek a ñu tardeel ñun jigéen ñi bu dul woon loolu dinañu weesu fii ñu nekk. Mhm. xew nag moom mënul ñàkk comme ni nga ko waxee waaye nga xam noo koy defee. Mhm. ndax gënuñu ñi ñi ñi ci les pays occidentaux ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñu ngi am ay doom di def mariage di def tout mais dañuy yemale lu ñuy def. mais ñun yàq bi dafa gën a bari suñu côté. ba pare bëgg gis leen ma bi rek moo tax nag. ndax diw man rus naa tey daba def na lii ci xewam. Mhm. yebbi na fi ay un million 2 million mhm. donc man su ma ñëwee duma ma ëppale. Mhm. donte mënuma ko donte daba moom ëpp posture. moom ëpp xaalis mais il faut ma jéemantam def ba def lu mu mënul. kon nag loolu ñun jot na ñun jigéenu senegal yi ñu bàyyi ci xel bu baax seet nu ñuy mm, yamalee suñuy xew ba nga xam ne duñ ci loru. ndax. dund gi yemul ci bëccëgu xew bi kese. bu bëccëgu xew bi weesoo feebar ngi fi fajoo ngi fi yeneen ak yeneen a fi comme ni mu leen kay waxee toujours. Mhm. donc euh, soxna Daba. Mhm. lan mooy sa dernier mot. <laughs> sama dernier mot rek mooy euh, kontaan naa bu baax ci invitation bi. ndax euh, tey li ma fi ñëw li mbégte la ci man euh, ndax Daouda Guissé bokk na si ñi nga xamante ni encadré nañu wax dëgg neex yàlla bi ñu nekkee rajo am si ñun yërmande bu baax lu bari jàng nañ ko ci ñoom kii man ni ma daan waxee chaque jour rek man leen euh, diplôme naam am na solo wante expérience tamit dara dàq ko ndax bi ma li ma ko waxee ko keroog rek ma ni Umar Diouf bi ma xamee lool sax mooy Umar Diouf Fall bi Golbert génne àddina dafa ni moom ba mu demee sisti jàngi ji dellu si Golbert ma ko doon encadré dafa jël ay diplôme ko ci biir leneen di moo di li may gën a tàggoo moo di xale yi tey suñu génération nag ñi nga xam ne ñooy suñu ay rakk nañu delloo si seen xel te tamit humble nit ki da nga war a euh, humble foo toll da nga waroo yëkkati sa bopp ci kaw te defal toujours sa soo bëggee avancer dans la vie da ngay def sa bopp rek man xaw ma dara da ngay jàng ndax jàng du wees te àddina defe naa ni ba ngay bi nga juddoo ba ba ngay sàngu suuf da nga war di jàng rek mais su fekkee da ngaa jël sa bopp defe ni maa gën a xam ñëpp da ngay toujours tardé kon nag xale yi suñu morom yeeg ñi nga xam ne ñooy suñu ay rakk te nekk ci métier bi nañu wàcc seen bopp di jàng ci mag ñi jox mag ñi cër respecté leen respecté seen ay waajur man defe naa ni loolu laay tàggoo di leen sant di leen gërëm di kontaan ci invitation bu baax a baax di gërëm waa Ndar yépp di gërëm tamit sama waa station di ay nit ñu baax ñi nga xamante ni vraiment ñu am yërmande di ma jàppale ci sama liggéey bi di sant di ñaanal sama yaay gudd fan ak wér ak képp ko nga xamante rek te yaa ngi ñuy déglu allahumma amiin ñu ngi kontaan si yow bu baax a baax di la jaajëfal itamit ci sa teew bi nga teew ci émission bi kon nag euh, ñu ngi ñaan rek yàlla may na nu fekkewaat beneen édition ñu euh, di continuer si jigéen ak jamono noo ngi gërëm suñuy technicien suñuy technicien ak suñuy caméraman ñoo ngi leen di sant di leen gërëm donc je vous remercie d'abord <laughs> à la prochaine allah